dimanche euh, bu jot rek fii ci rajo Rewmi FM te nag euh, ci émission gox bi ñu war ci euh, dalal rek ki nga xam ni nag moom moo di Boubou Ba nekk premier adjoint bu commune bu Jaxaay ñàkku rab itam tey moom la ñuy daal di dalal ci émission gox bi kon sëñ bi ba ñu ngi lay di la sant di la gërëm bu baax a baax ci nangoo ci li nga xam ne moom moo jëm ci sunu invitation bi. alors tey euh, ñu war a waxtaanee tey ci ponk yu bari ci wàll wi ni mel. Mhm. mais laata ñuy dugg ci mbirum bi nga xam ne nag moom moo gën a yëkkati tey ñu woo la. Mhm. mais dañuy daal di waxtaanee rek commune bi nga xam ni nag moom moo di euh, commune bu Jaxaay mhm. est-ce que tey mun nga ñu defal commune euh, genèse commune bu Jaxaay. waaw commune de Jaxaay mu ngi soqeekoo ci ancienne commune rurale bu Sangalkam nga xamante ne dafa amoon découpage en 2011. Euh, ñu en 2011 donc ñu créé ci biir Sangalkam commune rurale bi ñu créé ci quatre communes Euh, commune de Jaxaay Parcelles Niakoulrap mm -hmm. commune de Sangalkam commune de Tivaouane Peulh Niaga ak commune de Bambilor mm -hmm. donc mën nañ jàpp ne commune de Jaxaay mu ngi soqeekoo foofu en 2011 mm -hmm. euh, maintenant ñu ñu indi ko installé ko au niveau de Jaxaay mhm. euh, créé fa ay délégation spéciale mhm. ñaari délégation spéciale mhm. ba 2014 euh, waaw yàlla def euh, ay élection am ñun ñu nekk fa waaw maintenant nag il faut rappeler aussi que Jaxaay Euh, plan jaxaay dafa am donc am euh, am am yeneen localité yi waaw mhm. euh, parfois nit ñi dañuy def erreur yooyu commune mu ngi tudd commune de jaxaay mhm. maintenant dafa am lu ñuy wax plan jaxaay am les autres localités mhm. notamment les parcelle Parcelles Assainies Daaru Cuub Ñàkku Rap cité gendarmerie et cetera donc euh, loolu ba mu amee euh, jaxaay moom commencé nañu installé wu ñoom en deux mille cinq. mais dëkk yi may wax nii. ñoom xaw nañ fa yàgg par exemple Niakourap dëkk bu def presque quatre cent ans la. Euh, Medina Thioub pratiquement. une cinquantaine d'années jax euh, cité gendarmerie noonu noonu la quoi. Mhm. donc noonu la ñu magante. Mhm. mais plan jaxaay en tant que plan jaxaay ñoom ñu ngi démarré euh, vers deux mille cinq. Mhm. yéen commune bi tey euh, concrètement moom fan lay tibbee li nga xam ni moom moo jëm ci wàllum koomam foofu nga xam ni nag moom moo di ca commune ba pour ngeen mën a am li nga xam ne mooy jëm ci yéen dundiwaay ci wàllu wi ni mel. waaw bon xaw na diversifié wu tuuti. maintenant nag li ci ëpp solo nag mooy ci ci ci ci wàllu euh, autorisation de construire yeeg euh, les frais de bornage li mm-hmm. ëpp fu mu toll nii fa lay jógee ko mm-hmm. bon am na yeneen recette nag yuy jóge ci mm-hmm. commerce yeeg euh, voilà quelque entreprise yu fa nekk notamment sédiment yeeg yooyu am na yu fay jógee mais li ëpp doole daal ci euh, liy dugg ci gafak euh, mairie bi mm-hmm. Mm-hmm. mu ngi jóge ci ci ci ci ci autorisation de construire yi mm-hmm. ak euh, les frais d'alignement alors tey Boubou Ba bu ñu la wooyee fi xam nga coow luy lëmbee daanaka actualité bi moo jëm ci mbirum redécoupage bi nga xam ni projet bi nga xam ni soumettre nañ ko naam validé guñ ko waaye dañ ko teg yéen projet bi balaa ñuy dugg ci fond bi ba ngeen ko déggee naka ngeen ko apprécier ngir li nga xam ne moom moo jëm ci amalaat redécoupage bi ndax yéen seen mairie d'accord ngeen ngir ñu amal coupage bu yees bi. Mhm. voilà donc comme ni nga ko waxee ah question la boo xamante ni vraiment moom moo nekk euh, ci ci ci lèvre yëpp. Mhm. Euh, ñun li ñu ci am mooy bon parce que damay leeral ni. Mhm. ñun yàgg nañu demande ñu corriger vraiment les incohérences territoriales. nga xam ne kon amoon na. amoon na ci fan. donc amoon na suñu diggante ak Kër Massar. ok amoon na suñu diggante ak Bambilor mhm. amoon na également suñu diggante ak Tivaouane Peulh mhm. euh, bi ci gën a fës nag mooy bi ñu amoon suñu diggante ak Kër Massar mhm. parce que dafa am ay unité ci biir parcelles yi nga xamante ne dañ doon wax ne euh, euh, Kër Massar la bokk te ñu jàppoon ne ko loolu mënta nekk parce que mënuñoo jógee wax naa ko sànq ci ancienne communauté rurale de Sangalkam la ñu jóge woon bañ fa jógee parcelle Assainies yi unité yëpp euh, l'actuel ministre de -hmm. Mhm. des collectivités territoriales, mm -hmm. l'aménagement je crois. Mhm. donc euh, maire de Sangalkam. Mhm. Omar moom moo fa nekkoon président communauté rurale. ba mu fa nekkee. frais d'alignement yi ma doon tudd sànq. autorisation de lotir yi lépp moom moo ko defar. moom moo encaissé xaalis bi SN HLM e fayoon. toutes les unités laa wax. Ah waaw mhm. donc bu ñu demee ba ci jëmmi jamono ñu naanu non parcelles yi bokk ci pa yee bokk ci daf ñuy jaaxal c'est un problème mhm. waaw moom ci wàllu boppam mu dem benn rajo de la place di wax loolu mhm. naan moom xamul woon ne donc unité nangam unité nangam ci ci ci Kër Massar la bokk loolu yaakaar naa ne yab nit ñi u ko donc loolu ay incohérence la incohérence la woon ñu bëggoon ko Euh, ñu corriger ko. Mhm. ñun loolu moo nekkoon suñu suñu gis-gis ci ci wàll bi def nañ ci ay mémorandum def nañ ci ay rencontre mhm. donc pour loolu. Mhm. maintenant lii ba mu ñëwee. ñun wax dëgg yàlla mosuñu xalaat genre découpage bu mel nii. danañ ñu ko proposer. Ah dañu toog le cinq bi passé. Euh, sous préfecture yónnee ñu. benn correspondance euh, ne ñu dafa dañoo war a def conseil. conseil d'urgence. voilà conseil municipal d'urgence. pour joxe suñu avis. Mhm. par rapport ak projet de découpage bi nga xamante ne moom la ñu indil. Mhm. donc loolu ça bon le cinq lañ ko def. Mhm. ñu ne ñu nag nañu def kii bi conseil bi le huit. au plus tard le huit. donc jébbal leen euh, le PV. Euh, le onze. donc nag affaire bi bañ ko liiree. mu jaaxal ñu parce li mu li ñu njëkk a def mooy bañ jotee correspondance bi wootee réunion. avec euh, le bureau municipal. ñu waxtaan ci. xam nga ñu waxtaan ci gis ne Euh, au lieu ñoom ñu corriger. problème yi ñu amoon. ñoom dañ koo gën na sax wàññi. parce que dañu def découpage bi. génnee si ñaari dëkk. maanaam dañ leen léser. dañ ñoo léser. Mhm. yaakaar naa ne wax ji dafa bëri ci yeneen commune yi yaakaar naa ni ñuy léser jaxaay léser wuñ ko benn commune. ah bon wax ah oui. Mhm. parce que dañu ñëw génnee benn village bi ñuy wax Medina Thioub. Mhm. village traditionnel. génnee beneen village bi ñuy wax Ñàkkurab. génne ko ci mhm. rattaché Médina Thioub Sangalkam mhm. rattaché euh, Tiwa euh, ñàkkurab Tiwaan Pël donc bàyyi fa ni cité euh, ne ne jaxaay mhm. parcelle commune de jaxaay parcelle mu jeex foofu ba pare leeru luñ sax yeneen secteurs yi ay cité gendarmerie yooyu leeru luñ sax ñoom fan lañ war a dugg waaw donc dañuy jàpp ne rek foofu lay dugg mais boo calculer fu mu toll nii kii ba maanaam ñetti dëkk lay am parce que bu génnee jee lébu geeg genre yooyu mais euh, jaxaay jaxaay finalement ñetti dëkk mun naa wax sax ñaar la. Mhm. parce que jaxaay ci boppam. ci mhm. Parcelles Assainies la bokk. ok parce que Parcelles Assainies la Ablaye Wade jëloon. Mhm. ñu ko defee euh, commune ba cité gendarmerie rek lay doon. ak euh, Parcelles Assainies. ok donc nag ñu jàpp ne loolu parce que dañ ne woon. parce que président de la république. ba mu ñëwee jaxaay laay wax waxuma Kër Massar. parce que fi mu ñëwoon unité trois la. mooy li ma doon wax sànq unité 3 boobu dafa bokkoon ci unité parcelles yu ñuy wax ne ñun ñoo ko moom ba muy def visite foofu la taxaw mhm. damay jàpp ne kon jaxaay la ñëwoon ba mu ñëwoon dafa dafa dafa dafa joxe ñetti axes yu majeur wala ñetti décision yu majeur mhm. bi ci mujj moom mooy def Kër Massar département mhm. quarante sixième département mu dellu wax ne danañ woo acteurs yëpp yi fa nekk parce que waa mairie bi ñu nga fa euh, les euh, personnes ressources ñu nga fa les imams et cetera et cetera les délégués de quartier mmh. ñoo ñëpp waroon nañ leen mën a consulter mmh. ñu waxtaan ci balaa ñuy def projet de découpage parce que nit ki aussi. Mhm. mooy li waa wax rek tout ce que tu fais. Mhm. pour moi sans moi tu le fais forcément contre moi. Mhm. maanaam waxtaan amul jiwu ci. waxtaan amul ñun daal dañoo xëy rek ñu génn ñu benn projet de découpage. nañu nangam la léegi ngeen dem ca conseil ba amal ngeen ko léegi waxtaan yi jibee fa lan ngeen fa tënk comme kaddu maintenant conseil bi moom dafa mujjee radical parce que amoon nañ quarante six présences euh, pratiquement deux ñoo ànd ci projet bi quarante quatre yëpp dañoo rejeté projet bi waaw donte suñu avis parce que dañoon nañ joxe suñu avis mhm. bon jàpp naa ne euh, suñu avis bi c'est c'est consultatif mhm. tout simplement mhm. moo tax ñuy def bruit aussi parce que mun nañu wax ne ah dégg nañ li ngeen wax waaye lii a gën si yéen mais dañ leen di wax daar daal ñu def gënu si ñun bëgguñu ko daf leen lor daf ñuy lor donc conseil municipal bi lañ laaj avis mais ba ñu def conseil ba ñu bëri teewoon nañu imaam yeeg délégué de quartier yeeg maanaam ñëpp ñoo xamante ne tekki nañ dara biir jaxaay ñëpp teewoon nañ ci conseil boobu bu mel noonu mus faa am te ñëpp ñoo ànd maase rejeté loolu parce que jàpp nañ ne baaxul ci commune bi ba ngeen ko rejeté itam gis nañ seen i ndaw baare tali bi wane seen ñàkk seen ñàkk ànd ci projet bi mais est-ce que gisoo leen ci biir projet bi itam ngëneel goo xam ne di ngeen ko am ci commune bi ah man de gisuma ko bu dee parce que dañu ne jaxaay dañ koy def euh, arrondissement d'accord loolu baax na. Mhm. xam nga mais gis parce que euh, acte trois ba mu ñëwee. Macky mhm. Sall dafa am lu mu. daf leen lu mu wax. Mhm. dafa ne commune bu ñu koy def. na nekk euh, commune bu viable. xam nga. Euh, commune bu compétitive. et porteur de développement durable. juste loolu moo nekk ñetti axes yoo xamante ne moo laal commune. ñu gis nekk ñett yooyu yëpp amul ci commune de Jaxaay parce que bu ñuy wax viabilité ah day fekk nag. nga nga am dara. loo toogee. mais jaxaay tey économiquement. bu ñu génnee ñooñu amuñ luñ toogee. gisuma foofu loo xamante ne war leen mën may may koom. buñ bu ñu toogee. waaw boo amul koom nag doo compétitif. waaw boo amul koom munoo munoo compétitif. beneen bi mooy porteur de projet. man de gisuma fi loo xamante ne bu fekkee ñaari dëkk yooyu rek la ñu boole. ah gisuma ñu ñu mën a am benn projet boo xamante ne wax dëgg yàlla projet de société lay doon. pour mhm. commune ba. Mhm. Eh, mun nañ yóbbu ci développement gisuma mhm. loolu. xam nga da nga jàpp ni yàkkamti la wala naam incohérence mi ngi fi woon. mais da ngeen jàpp ni du anam ji leen koy daal di amale. non man damay jàpp ni politique la parce que président. Ah, moom idem xam nañ lu tax lu tax nga ne politique la. non xam nga président. moom li mu wax dafa leer. moom bëggul injustice. Mhm. ba mu ñëwee bëgg na corriger lépp lu mu fekkoon régime Ablaye Wade def ko fi. Mhm. d'ailleurs moo taxoon ba mu ñëwee ancienne euh, euh, communes yi nga xamante ni yëpp dafa amoon ci Sangalkam. Mhm. mu delloo ko délégation spéciale. jël conseil yi fa nekkoon. mu jox leen ko. donc c'était pour corriger ça. bon leneen li bu ko teeloon a def peut-être dina am yeneen impact yu mu am. donc ba mu ñëwee nag wax projet bi dafa am lu mu ci jublu. maintenant li mu ci jublu. Mhm. maanaam ñi mu ko dénk ñoom dañoo génn ci loolu di régler seen problème politique. Ah parce que du ma ma dem avec des gants le ministre Omar Gueye. Mhm. moom mooy ministre des collectivité territoriales. Mhm. maanaam projet bi moom moo koy mettre en œuvre. dellu nekk maire de Sangalkam. donc déjà rek juge et partie mu nga fa. waaw te li ñu gis ci projet bi ba ñu ko envoyé. c'est vrai que Sangalkam ñun mhm. d'accord nañu pour ñu defaraat ko. Mhm. parce que Sangalkam c'était. trois ñaari commune rek la benn mhm. benn commune la. mais ñaari ñetti village moo fa nekkoon. Sangalkam Noflaay ak Njaxiraat Digg. xam nga d'accord nañ pour ñu ñu defaraat ko. parce que directeur am ana anaat keroog. dafa ci benn émission. Euh, wax ne Sangalkam un kilomètre la foofu parce que mënuma ko muñ moom il faut ma leeral ko. parce que Sangalkam kese kese kese. ëpp na un kilomètre carré. nit aussi buy wax day wax lu mu xam. Mhm. Sangalkam kese kese ëpp na un kilomètre carré mais d' nañu quand mhm. pour Sangalkam ñu ñu defaraat ko. mu viable parce que mhm. Sangalkam dans les normes xëy na peut-être Omar Gueye li a rattaché sax Bambilor parce que viable tul ah, kon yow da ngay da ngay euh, maire bu Bambilor Ndiaye Diop effectivement Sangalkam normalement dañ ko waroon rattaché ci ci Bambilor parce que commune boo demee ba yow euh, amatoo koom-koom mënatoo demal sa dañ la war a traité feneen parce que gis nañ ñu mu doon xaw a dundee tuuti sax gis nañ ni que ministre bi da cee loxoom bu baax a baax. Mm-hmm. donc nag euh, d' nañu daal pour ñu defaraat. Mm-hmm. mais bu ñu koy defaraat nañu équilibré. maanaam yow da nga ne ci ban fànn mooy d' mm-hmm. xam nga boo jëlee nga ñëw si commune. xool maire ba fi muy jiite maire bi jiite commune bi fi mu dëkk. nga dagg commune nga dagg village am. yóbbu ko feneen. nga xool adjoint am mhm. man mii fi ma dëkk maa ngi dëkk Medina Thioub mhm. euh, mair bi mu ngi dëkk ñàkkurab mhm. mu jël ñàkku ñàkkurab yóbbu ko Tiwaan Pël man fi ma dëkk mu détaché ma bu maa yóbbu sangal léegi xaaral tegal sa baaraam foofu parce que léegi su ma la déggee mooy yéen ci délégation spéciale ngeen jëm bon loolu moom bu bu bu projet bi anto bu projet bi anto normalement. ci délégation spéciale. ngeen jëpp parce que léegi premier adjoint beeg maire bi xaajal nañ leen. waaw génne nañ leen ci commune bi. <laughs> donc loolu doy na waar bi xam nga nga jiite mbir ba pare ñu xëy xëy ne la yow xaaral ñu jënd la teg la fële. <laughs> donc loolu moo tax ma ne lépp affaire politique la parce que ñun ànduñu ak moom ah, politiquement ñoo bokk parti mais ñun nanguñu mu coordonné parce que loolu tamit day leer. Ah, kon da d' accordul ak euh, jëmukaay ak Omar Gueye. d' accorduñ ci politique am. <laughs> ak moom. donc nag pour se venger moo tax mu def lii. ah vengeance vengeance lépp. loolu la c'est un rancunier parce que déjà même jaxaay ba ñu yóbbu Sangalkam délégation spéciale jaxaay dañu laaj commune Ablaye Wade ci la sukkandiku woon def loolu. c'était logique c'était légitime mhm. ay nit bu ñu nekkee fenn ba jàpp ne ñu ngi leen di boot waaye seen tànk mu ngi laal suuf mais mën nañu laaj ñu wàcce leen donc loolu ba mu amee mu amal jaxaay benn rancune boo xamante ne kenn xamul euh, fu mu ko fu mu ko jëlee mhm. donc mboolem li fi Omar Gueye proposé. Mhm. mbiru politique la rek. li ci des mooy euh, mooy li mu ko wax dafa nekk juge parti jël maanaam li gën a duuf si nag bi sax moom. cërale ko boppam cërale ko boppam. xam nga en réalité dañu envoyé ay kii ñu compté ko mu xaw a nekk ay dix euh, localités. Mhm. yoo xam ne dañu ko rattaché Sangalkam. Mhm. mais en réalité ëpp na dix man li ma compté ci ay localités yu ko dugal mën na trente localités yoo xamante ne tudd ñu leen parce que dañuy tudd li ko wër rek bàyyi ci digg bi. fekk kii yu mag la. xam nga jël li nga xamante ne moo nekkoon koom-koom par exemple am na am na ay ay ay ay entreprise wala yooyu xamante ne dañ nekkoon côté boobu surtout côté kunun beeg yooyu mhm. mu jël yëpp taf ko ci boppam waaw maanaam daf leen gën a <laughs> éliminer daal non moom dafa mooy gars yi ni ñu ko bëri waxee rek séddale bukki la def rek mhm. bii bukki bii njuur bii sàmb mhm. loolu la bëgg a def ah. jël li gën a duuf si nag bi daal. cërale ko boppam cërale ko boppam. Mhm. mais gis nañ ni projet la bi nga xam ni dañ koo euh, teg euh, ñu laaj leen seen avis mhm. euh, kon su ma la déggee mooy jarul ñu ci continuer nañ ko arrêté foofu. non ñun moom jaral nañ lu nekk. Ah jaral nañu lu nekk. waaw kooku day leer parce que ay nit boo leen defaral na fekk li nga leen defaral bëgg nañ ko wala amal na leen njëriñ. Mhm. ñun ay nit lañu xam nañ lu baax ci ñun ak lu bon ci ñun donc boo ñuy defaral nag da nga ñuy déglu. ñu wax leen ni ñu ko bëggee ni nga xamante ne askan bi noonu la ko bëggee nga def loolu. <laughs> mais boo defee lu waroog loolu pour sàmm say intérêt politique duñ ko nangu. dañuy xeex ba waaw dañuy xeex. lu kon lan mooy tey seen euh, plan d'action ginnaaw amal ngeen conseil bi nga xam ni mm-hmm. euh, d'accorduñ euh, ñaar ñoo ci àndul ci 44 n'est-ce pas. 46 alors 46. Mm-hmm. Mm-hmm. mais léegi lan xeex bi fa ba fan la jëm. ah suñuy stratégie boobu duñ ko wane en tout cas xale yi am na lu ñu def ba bis bi ba affaire bi amee ñu ngi si ay stratégie aussi ay waxtaan parce que affaire bi aussi day laaj ñun ñi delluwaat ci ci quartier yi. parce que mhm. mayu ñu woon temps sax xam bu ñu lay waxee le cinq ne la le mhm. nga parce dañ la teg pression. Mhm. xam nga ñu ngi dem a delluwaat di dem ci ak euh, askan wi di def ay assemblée générale ak yu demee noonu. pour gën a leeral mbir mi xam nga fi ñu jëm nag ci xeex bi. tamit bàyyiwuñ ñu ngi lal suñu stratégie am na yu ñu commencé déroulé am na yoo xamante ni ñu ngi xam nga. bi ci gën a leer moom man déclaré woon naa ko keroog. su mhm. nee nag vraiment lii bu jàllee mooy man affaire laa nekk mooy que parti bi joxuñu benn crédit dèjà li ñuy souffrir biir affaire rek doy na ndax Omar Gueye li ñuy souffrir rek biir affaire ndax Omar Gueye doy na. Omar Gueye moo leen ko teg. waaw ñu ci buggee dolli li leen. Mhm. day xaw a doy waar kon su ma la déggee yéen Njaañ Jóob ngeen di jàppal tànk. non Njaañ Jóob dafa nekk ci commune ñun ñu nekk suñu commune. ñoo mhm. bokk nag fii ñu toll nii ñoo bokk département bi ñu nekk. mais Njaañ la géré. ñun ñu gérer suñu commune. voilà maintenant nag euh, Omar Gueye moom. Mhm. Euh, daf ñu bugg a boole rek massacrer. <laughs> may wax nag fii euh, président Macky Sall. jën bi nga jën bi nga joggi. Mhm. bu mu la bàyyiloo bi nga téye sa loxo. man mii di wax ak yow fu ma dëkk ñun 2012 ba muy dem élection premier tour la fa tàmbalee gagné ba tey jii boobu xamuñu Omar Gueye xam nga Omar Gueye moom bon ni ñu koy kiwee da ni ñu koy misaalee dafa yomb. Omar Gueye permanence am boobu potu peinture am la la yor sama benn grand moom ko bëri di nettali potu peinture am ak borosam la yor. Mhm. régime bu ñëw fi mu ànd ak yow waaw. dem nekk na PS nekk na PDS. Mhm. nekk na réew mi nekk ba ci mouvement bu mu mujjee kii ñëwaat ci APR xam nga genre yooyu euh, buñ la yàqal. say mhm. nit yi nga xamante ne dañ laa gëm. topp si ginnaaw depuis boobu. waaw parti bi bu amee njëriñ sax bu muy indi si responsable nuñ duñ ko gis. man mun naa wax ne ba ma nekkee ci parti bi léegi tànku xar parti bi mosuma koo jox tànku xar loolu tax ma see nekk évidemment mm-hmm. mais pour won ko ne mm-hmm. amul dara dara dara li muy defar responsable yi nga xamante ne ñoo fi nekkoon mm-hmm. di ko sonal am na ñu ñëw bees wax dëgg yàlla ñu ngi liggéey jàpp ci liggéey bi waxuma ne transhumance baaxul parce que bu ñu fi tolloo tey wax dëgg yàlla li ñu ñëw di ñu jàppale si moom moo tax am lu ñu def ñoom am na lu ñu def aussi mais nag da ngay jox nit da ngay jox nit ñi cër Omar Gueye nag cër boobu la ñu joxul ok voilà dinañ ci dellu siwaat parce que lii balaa ñuy tëj dinañ ci ñëwaat mhm. euh, kon mbokk yi 88 la 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 alors ñu dem ci période boo xam ne ñu ngi euh, taxawal nañ euh, ab élection ñu ne ñu duppee ko atum janvier 2022 la ñuy dem ci élection yooyu noonu ndaxam yéen ci contexte bi nga xam ne indi nañ loolu arrangé na leen. waaw kii politique moom moom ma jàpp naa ne kii politique war naa pare. waaw buñ ne prix bi rek war ngaa pare. Mhm. ñun dafa am ci lu ñu nekk. te pare nag. Mhm. élection yi bu ñëwoon suba sax pare nañ dugg ci terrain bi. dem dagaanu baatu askan bi nguur nag askan wee koy joxe. Mhm. gannaaw yàlla. <clears throat> nguur askan wee koy joxe gannaaw yàlla. mais xaar bi yàggoon na ñu yokk seen mandat. si si. waaw parce que finalement xam nga gars yi dañu yaakaar ne da ngay kii le fait ñu yokk sa mandat plaisir la ci yow alors que yow loolu daf lay gën a sonal. parce que di nga toll foo xamante ni yow di nga soxla delluwaat ci askan wi xam nga ne leen kat ah li ngeen ma joxoon mu ngi nii lii laa ci def lii laa ci def. Mhm. bu ngeen ma wóoloo joxaat leen ma. ki bëgg aussi soxla na dem ci askan wi ne ah, fi nekk nag lii lañ def lii lañ def man mhm. bu ngeen ma joxee naa def nangam ak nangam mhm. cest sa dire ñun ñu ñu jox ñun dañoo soxla loolu. dañoo soxla loolu. donc élection yi. Mhm. ni ñu ko jàppee ñun kontaan nañ ci trop. Mhm. te pare nañu aussi. ok waaw da ngeen ni xam nga bi yoon contexte bi dafay xaw a changé. Mhm. ndax am bu ñu leen continuer di leen léser nii. da ngeen ni dem ci yeneen bannière taxaw présenté wala ngeen de seen biir parti. waaw ñun de bu ñu yóbboo nii moom il faut ñu def point d'interrogation sax suñu parti ñu bokk. parce que maa ngi ko doon wax sànq àggali ma ko APR dañ bokk. mais bu fekkee nar na demee nii mais est-ce que suñu bokk APR dina amati njëriñ. parce que bu ñu la jëlee ngay xeex ak fee benn waay ñu jël la rek jébbal la waaja benn yoon kon sa xeex yaakaar naa ne du bëri ti njëriñ. Mhm. donc moo tax ñuy attirer attention président de la république. Mhm. parce que lii bu jàllee c'est des risques beaucoup de responsables dinañ bàyyi parti bi kooku c'est sûr. Mhm. yow candidat nga ci élection yi ñu jóg. candidat bon ci parti laa bokk. xam nga boo nekk ak ay nit da leen di jox cër. xam nga. ah am nga yéene tamit diriger commune bi. amul ko amul ko amul yéene diriger. waaw mais comme ci parti laa bokk eh, ñu nekk fa ñu nekk ak suñuy nawle. Mhm. dañuy jàpp ne dañuy waxtaan. ba xool ki profilam gën a baax. Mhm. ñu yóbbu ko bu fekkee voilà. Mhm. donc parce que loolu boo nekk ci groupe. doo xëy xëy ne ma nangam nangam wala nangam bëgg bëgg nag ni sañ na ko. waaw man nag du ma nekk fii naan waa bëgg naa lii wala bañ naa lii. non nga beneen am na ku ma nekkal. muy l'actuel maire. Mhm. aussi am nga pour jox ko cër aussi doo fi nekk naan waaw man candidat laa doo ko def. nga déstabiliser. voilà mhm. donc li ngay def mooy taxaw déglu parti bi. Mhm. parti bi ku mu tabbane yow yaa ñu doy. nga jiital ñu liste bi. mais <laughs> ak tey contexte bi. <laughs> waaw contexte bi daa bu jàllee moom nee naa point d'interrogation. politique nag moom politique la. mais point d'interrogation bu rëy. bu fekkee jàllul tamit noon la. en tout cas li ñu tàmm mooy booloo dajaloo. Mhm. ñun waa coalition bi yëpp te coalition laay wax. Mhm. ñu toog xool ki nga xamante ne ah bi jàpp na ne kii bu demee. Mhm. mbër la boo xamante ne crédible na. bu demee dinañ am ndam ñun ñëpp ñu nekk si ginnaawam jàppale ko. bu nee man la amul problème damay jàppale man la. bu ne keneen la aussi mat futteeku jàppale ko. Mhm. waaw alors di di di fàttali nii am na euh, fan yi benn communiqué bu fi doon génn ñuy wax ko costion dix millions. di fàttali rek ni mbokk auditeurs yi ak ñi nga xam ñu ngi ñuy suivre si yenn plateforme yi dix millions yooyu bañ ko doon wax atum 2014 la woon Aly Ngouille Ndiaye moo fa nekkoon caution dix millions mais tey nii ba ba tey nii ministère intérieur euh, communiqué guñ ci li nga xam ne moom moo jëm ci caution bi nga xam ne war nañ ko fay. ndaxam yéen 10 million ba woon bëgg ngeen ñu maintenir ko wala ñu xoolaat ko. waaw man de bu ma sañoon ñu yokk ko sax parce que xam nga léegi ko jóg rek. ne ah, dama xanaa da nga ñeneen ñi nga xam ni liberté xanaa duñ ko may ñeneen sañ-sañ ku bëgg a nekk candidat ñu may ko ko mais 10 millions c'est trop. non 10 millions ci ku am yenn ambition yaakaar naa ne bëriwul. ñoo c'est pas beaucoup. te encore que parti bu fekkee parti la boo xamante ne voilà bu respectable joxe 10 millions pour pour pour listam yëpp kay loolu yomb na. parce que gars yi nag ma wax la li ñuy dugal ci campagne moo ëpp dix millions ah. li ñu boo wan dem leen seen liste ngi nii defar leen ko. Mhm. li ñuy dugal ci campagne bi c'est des centaines de millions. Mhm. nag loolu yàpp naa ne lu jaadu la. joxe caution. Mhm. au moins dina empêcher mu am prolifération liste yi parce que dafa am ñoo xamante ne. dañ lay leer ne bëril feuille rek la ñuy def. am pour cent loolu waaw bëril fa yàq feuille rek. <laughs> loolu ku xam nga état lu muy jël di ko dépense ci élection dafa bëri. waaw am na fu mu xaj. maintenant nag bu ñu amee nuñ koy équilibré ba wàññi loolu mais ñun dañ dañ naan waaw parce que ku jóg rek ne waaw man candidat laa nangam mu indi sa liste. Mhm. déjà da bëri liste yi ci kii bi nit ñi bu ñuy voté finalement du ñu xam li ñuy voté lu mu doon. Mhm. c'est vrai nag sénégalais bu bëgg naa nangam. tigi mais nag aussi nañ ko teg ci yoon. parce que mhm. tamit euh, loo gis dafa am dafa am lu koy gérer. waaw du ko jóg rek ne nangam du ko jóg ne nangam. donte ñun ñëpp ay sénégalais lañ am nañ droit laaj. waaw mais nag. am na loo xamante ne dafa am dañ koy teg ci yoon daal. ok waaw mais man nag d'accord naa ci moom vraiment. Mhm. alors commune bu euh, Jaxaay la ni daal di waxtaanee atum 2014 ba tey yéen yéen a nekk ci mairie bi tey dañ ci euh, jukki ay pàcc tey bu ñu ñëwee ci wàllum infrastructure. Mhm. Euh, ci wàllum commune ba 2014 ba léegi tey am na yokkute lan nga ñu ci mën a wax. bëri na parce que loolu rek ëpp na émission. léegi juk ñu ci ma jukki waaw. Mm-hmm. parce que boo xoolee dañ fa am ay domaine de compétence transféré. Mm-hmm. jox nga xamante ni bu nekk dañu ne def leen ci nangam def leen ci nangam. Mm-hmm. damay jël benn gum muy éducation. déjà éducation moom ñun département ba ñu bokk. jàpp na ne jaxaay moom mooy meilleure commune ci wàllu woowu. ndax résultat da ngeen jàpp ni moo ko fay ëppale. moo moom daal kenn ëpp ñu fa résultat yu baax. waaw si département de Rufisque bu mu jeex. lan mooy kii secret bi. bon liggéey la rek te ñu jàpp ne aussi njàng ci la lëpp nekk. Hmm. parce que boo formé say ndaw formé say xale. Eh, li gën a wóor mooy sa ëllëg dina leer. Hmm. waaw ñun jàpp nañ ne xale yi bu ñu leen formé ci wàllu njàng mi vraiment ba ñu ba ñu taxaw commune ba ñoom ñoo koy ñëw développé. Hmm. fekk kenn du ci sonn parce que dinañ tekki. te ku tekki di nga xalaat fi nga jóge donc moo tax jàng njàng mi ñu ci ñu ci xar suñu tànk tubéy. ca l'école ya. am ngeen classe yi ñuy defar bari na. on est une quinzaine de classes yoo xamante ne comité moo ko defar. Mhm. sur fonds propres. Mhm. defar ay clôture école yoo xam ne dañu leen fa fekkoon amuñu clôture amuñu dara defar. Mhm. defar ay ay ay ay bloc sanitaire xam nga euh, defar ay cantines scolaires loolu yëpp commune bi def na ko boo bokkul ak subvention yi ñuy subventionné les écoles. di leen jàppale ci wàllu xaalis di leen jàppale ci wàllu fourniture. parce que chaque année am nañ subvention yoo xam ne dañ leen koy defal jox leen ko xam nga. presque am na loo xamante ñoo ko mu njëkk def sax ci département bi. mooy ñëw ci école xam nga jàng bi léegi dafa am. Mhm. système yu bees. Mhm, soppiku curriculum mhm. curriculum lañ koy wax ak yooyu am na yeneen ñuy soxla. lu bokkul ak li ñu xamoon. ñun ñoo fa njëkk ñëw indi ay ordinateur ay imprimante xam nga genre yooyu matériel boobu. matériel de bureau yooyu ñoo ko njëkk ñëw jox ko sous forme de subvention. ba ñeneen ñi tey di copier xam nga. donc daal ci wàllu njàng mi. vraiment ñu ngi remercier maire bu baax di mm. remercier aussi madame Coulibaly mi nga xamante ne moo yor conseil euh, commission boobu mm-hmm. vraiment def nañ ci lu am solo mm-hmm. voilà nga jël côté côté santé ñun sur propre tabax nañu poste de santé bu cité gendarmerie ok xam nga parce que loolu xaalis yu bëri lay laaj mm-hmm. tabax nañ poste de santé di jàppale santé bi aussi am na doon nañ joxe ay matériel médical ci poste yi fa nekk yëpp bon euh, di subventionné aussi ci seen médicament ñu xool nuñ ciy jàppee. Mm-hmm. xam nga parfois ñu jàppale leen ci seen i facture mm-hmm. aussi donc yëpp dañ koy def. paj mi le la fait que ñuy hmm. déplacé wu di dem di faji ñi feneen. est-ce yéen a ngi xalaat euh, taxawal yenn euh, hôpital yoo xam ne balaa ñuy mën a génn di dem soit euh, ay hôpital principal ngeen mën a am loo xam ne lu ñoŋ la tey seen biir commune bu ko defee rek nit ñi di mën a toog di faju foofu. waaw parce que dafa am loolu sax vraiment merci beaucoup ci question boobu. parce que hmm. amal na ma solo. Hmm. parce que li may wax nii moo tax. parce que dafa am benn centre de santé. xamante ne. dañ ko commencé woon depuis Abdoulaye Wade centre de santé mu nga jaxaay boobu ba léegi mënul fexe ba mu pare. ah lan mooy problème bi. ah boo demee laaj ñii ñu la noo ci projet plan jaxaay la bokkoon projet plan jaxaay daanaka existé tul logé wuñ ko woon jamono Abdoulaye Wade logé wuñ ko woon ministère de la santé. Mhm. donc côté montage financier beeg yooyu doo comprendre. Mhm. xam nga c'est-à-dire dafa bëri lu loo xamante ni leerul suñu bopp. waaw mais ñun li ñu amal njëriñ. ñu solo. Mhm. mooy centre bi nañ ko àggali. Hmm. parce que li nga wax dëgg la parce que tey bu ñuy référé malade bu amee foofu ñu war koo référé da ngay dem Kër Massar. Hmm. mbaa nga dem Tëngéej dafa sori dafa sori te foofu am population boo xamante ne soxla ñu am centre de santé. ñoom doy leen soxla. Hmm. waaw. Ah, waaw damay revenir aat ci kii bi parce que même même district bi waroon am bu fekkee dañoo bàyyee nii district bi waroon am foofu. fa la war a nekk ci ay. waaye ministre bi ma lay wax moom dafa profité rek yóbbu district ba Sangalkam. ministre Omar Gueye. Mm-hmm. moom daf ñoo toppee mboor moom. <laughs> waaw moom daf ñoo toppee mboor. donc pour wax ne. Mm-hmm. côté boobu état bi mm-hmm. nit ñi génn ci presse. parce que paj na lu am solo la. waaw non dafa am solo. parce que nit bu wérul aussi mënul def dara. waaw nit bu wérul mënul def dara. donc euh, centre de boobu daal ñu ngi ñaan na ñoo àggali lu ko parce que li koy àggali rek bëreetut. parce que gros œuvre pare na daanaka. gros œuvre pare na boo fa demee tey def kii ko gis. état bi nag moom fay def yu am solo. Mhm. mais loolu tamit dafa ëpp solo. Ah, maanaam loolu lañ a la fay état bi di leen ci jàppale. Ah, promoville bi dugg na fa. Mhm. dèjà yoon yi vraiment koy. commencé gis. Mhm. te ñu koy ñu ngi sant président de la république bu baax a baax a baax di wax ne projet boobu am na solo. waa jaxaay ñu ngi koy gis te incha allah dinañ ci ko jëriñoo. incha allah waaw. alors léegi euh, balaa ñuy génne ci santé gi itam xam ngeen ni Covid mi ngi fi sonaloon na wicc. ñi nga xam noonu ci période Covid bi ngeen génne seen juntuwaay mën na xeex ak li ni mel. voilà loolu dama yaakaar ne loolu bokk nañ ci communes yu njëkk a jóg. Mhm. vraiment def ci dugal seen loxo. waaw dugal ci seen loxo euh, ci côté matériel bi ñuy soxla. Mhm. muy masque yi muy gel yi am nga bon matériel yu bëri même euh, yi jël température mu tudd ci. Mhm. thermoflash yi. lu bëri lañ ci def bëri go yeeg saabu yeeg ndox. ba mu amee rek. li ñu njëkk a def mooy def tournée. ok dem ci daara yi xam nga dem ci yenn bërëb yi nga xamante nit ñi dañ fay bëri di nekk. Mhm. jox leen matériel. ne leen lii kat ñoo ko contribuer. xam nga def ci ay sensibilisation parce que affaire bi aussi du matériel kese da ngay waxtaan ak nit ñi. Mhm. sensibiliser leen takk leen seen masque moytu leen moytu leen moytu leen. waaw ñi nga xamante ñoo yëngu si sant aussi accompagner ñu. Mhm. wax dëgg yàlla ñun dès les premières heures. la ñu jóg. dugg ci askan wi. jàppale leen. Hmm. yamul foofu les daara yu gën a bëri foofu da yóbbu nañ fa ay dund. Hmm. presque yóbbu fa yu bëri. am benn programme boo xamante sax mu jógoon au niveau de la préfecture. Hmm. Euh, mooy ba ñu wax ne taalibe yi nañu des nañu ñibbi seen kër yi mbaa ñu toog. bàyyi yalwaan gi. ñun bokk nañ ci commune yi nga xamante ne am na ay yu bëri ñoo leen doon jox seen dund. maa ngi fàttaliku weeru koor wi passé bële passé du moins. ba weeru koor bi jeex chaque jour ñoo leen di toggal toggal jox leen mhm. daal di fa nekk ñu ciblé woo leen donc nag def nañ ci lu ama ama am solo mhm. donc ba léegi tamit bàyyiwuñu mhm. ba léegi bàyyiwuñu tey lan mooy taxawaay tey mairie bi ak ñu bari jàpp nañ ni mbas mi euh, jug na fi mais moo ne jugu fi mi ngi fi ba tey euh, taxawaay bi da ngeen di continuer sensibilisation bi wala waaw ñu ngi continuer sensibilisation bi ak ak yeneen kuréel yi que mairie bi kese nekkul di ko def wala boog moom kese mënu koo def. Mhm. am na yeneen kuréel yi fa nekk ASC yi fa nekk vraiment ñu ngi leen di jaajëfal conseil communal de la jeunesse waaw te Issa Camara jiite ko aussi ñoom aussi ñu ngi leen ak euh, Diané moo jiite les ASC. Mhm. ñu ngi leen di ñu ngi leen di gërëm bu baax xam nga commissaire de police beeg les les les imams. et mhm. tout ça parce que affaire mbir ba mu amee rek benn comité la ñu taxawal. comité boobu moo doon saytu lépp lu jëm ci wàllu woowu. Mhm. te gis nañ ñu ngi def liggéey bu am solo te ba léegi ñu ngi continuer def liggéey boobu. Mhm. waaw bu ñaari fan ñetti fan dinañ def ay programme xam nga yee nit ñi. Mhm. xam nga ne leen ne affaire bi kat mu ngi fi. en tout cas nañ moytu peut-être nañ dund ak moom mais nañ moytu. waaw vraiment ba léegi. ñu ngi nekk ci yooyu di ko def. alors ñu bari dañuy wax faral di wax infrastructure yi dañuy fàtte ndaw ndaw ñi est-ce que am na li nga xam ne euh, jagleel nañ leen ko ci commune bi nga xam ne fa ngeen nekk. voilà donc loolu bëggoon naa si ñëw sànq. ba ñu wax affaire découpage bi. Mhm. xam nga ñun dañu dañu am benn espace. Mhm. voté woon ko désaffecté ko pour bëgg ko def stade municipal. Mhm. commencé nañ travaux yi. ku fa dem di nga gis clôture ak yooyu. fu mu nekk ñu ngi koy commencé mais. il se trouve que stade bi fu mu ne. Niakour la bokk. te ñàkkoro lañ ko bëgg a dagg yóbbu ko <laughs> xam nga donc ça veut dire que moom mm-hmm. jaxaay moom nañu xamante balaa ñoo amati stade yàllaa xam te jama jaxaay xanaa amul espace euh, jaxaay gisuma fa espace en tout cas boo xamante ne mm-hmm. mën na faa mën stade mën na ko abriter foofu gisuma ko mm-hmm. ok am na ay terrain maanaam projet la woon ndaw ñu la woon beneen ba euh, nu mu tuddati cimetière. Mhm. maa ngi kii sax dinaa dellu si si li ngay wax noonu mais dama bëgg a leeral lee balaa ñu koy. waaw mhm. jaaxaay amul cimetière. ok ah bon yéen Pikine ngeen di ñëw benn moo fa ne. Mhm. te village bi ñuy wax Medina Thioub la nekk mooy fi ma dëkk. boobu aussi ci projet bi dañ ko bëgg a dagg yóbbu ko Sangalkam. ça veut dire boo ko daggee waa jaxaay du ñu amati fu ñu rob en tout cas il faut peut-être ñu dellu ay Pikine nag yu demee noonu. mbaa ñu xool ban système la ñuy nga Euh, certificat d'inhumation dañuy dem ba Sangalkam jaaree ko fa soog a ñëwaat jaxaay pour pour régler seen problème. Hmm? donc pour wax la ne pour ma delluwaatee kii bi expliquer la. Hmm. mais côté jeunesse. vraiment loolu dinaa ko si tudd. Hmm. beneen bi aussi dañ leen di jàppale au niveau des ASC. E. vraiment ñu ngi leen di jàppale. parce que bu ñu a ASC. E, bon ndaw ñu bëri ñoo koy ñoo koy nekk. année bu at bu jot dinañ dimbali ci seen subventionné leen xaalis minimum trois cent quatre cent ba cinq cent mille ñoom jox leen. Mhm. ASC yi ñu dimbali ko mhm. parce que xam nañ ne euh, vraiment mbir yombul. Mhm. xam nga li si des mooy dinañ encore accompagner ñenn ñi sa bu ñu amee projet peut-être nekkagul lu bëri. wala lu am doole loo xamante ne fës na ci biir commune bi. mais dinañ koy def di accompagner yenn ndaw yi ci seen yenn projet yi. waaw bu ñu sañoon nag moom uh-huh. mu doon lu gën a yaatu parce que tamit bu fekkee yenn ñu ngi ciy jéem a dugg amuñu dooleem uh-huh. sincèrement uh-huh. loolu tamit dañuy demander état bi mu appuyé bu baax a baax a baax ñu wax euh, programme DER bi ak euh, programme milliards yi par exemple ci ñëw voilà ok alors tey kon su ma la déggee mooy maanaam euh, yéen am ngeen bilan boo xam ne mun ngeen ko teg ci kaw loxo askan wi ñoom ñooy naam ñoom ñooy apprécier waaye yéen mm-hmm. bilan bi yéen xëy na rafet lu ngeen seen liggéey mille 2014 ba tey. Mm-hmm. non non ñun moom on n'a pas à rougir ci lu ñu def parce que ku tabax ay classes clôturer ay écoles euh, tabax ay marché mm-hmm. parce que marché citoyen marché euh, Médina Thioub marché Ñàkkurab comité moo ko tabax defar ay yoon. Mm-hmm. xàll ay xàll. di dimbali ASC e yi di dimbali côté santé bi di dimbali euh, en en tout cas ñun. am mhm. am amuñu lu ñuy rougir. yaakaar nañ maanaam bilan bi mun ngeen ko tegaat laajaat euh, askan wi euh, ngir ñu voté waat leen parce que secteur boo jël mhm. nañ si teg suñu baaraam ne lii lañ def waaw te loolu moo am solo yaakaar naa ay mhm. nit boo ne da nga leen di yoral seen mbir na fekk ñoom ñu ngi gis li ngay def ma xëy na lépp matewul am na lu des lu gën a jàmp tey bëri na bëri na bëri waaw li gën a jàmp tey lan la bon li moo demoon wax sànq côté santé bi surtout wax dëgg yàlla war na ci jàpp bu baax beneen bi mooy yoon yi. Mhm. promoville dugg na. Mhm. mais dafa am kii yu bëri yoo xamante ne desservir guñ leen. mooy fan ak fan boo demee ñàkku rab ak daaru cub. Mhm. vraiment côté yooyu ba àggu fa. maanaam dem promoville bi dem bëgg dikk bi dafay xaw a metti côté yooyu. waaw loolu tamit vraiment lu lu kii la lu. lu jàmp la jàmp la. beneen bi aussi gis nañ extension électrification mu ngi am. parce que foofu aussi dëkk la yoo xamante ne chaque année day yaatu. ne projet de lotissement yi am foofu nit ñi di ñëw di fa dëkk si. Mhm. xam nga gis nañ ne que nit ñi dëkkee nag souvent problème courant ak problème ndox day posé mhm. am na secteur yoo problème courant moom yaakaar naa ne posé tul. dëgg dëkk bi fépp am na courant. fépp am na courant. Mhm. daanaka même bu fekkee am na fu amul bariwul. mais problème ndox mi moom problème la ba léegi. loolu aussi ñu ngi ciy def ay jéego mais ñu ngi ñaan aussi état bi mu jàppaleñ ci loolu. problème ndox bi moom daa mel ni Ndakaaru géej fépp <laughs> la. Euh, li ni mel mi ngay bëgg ndaxam yéen itam yéen a ngi jëlee devant di waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di autorités yi. Mhm. ngir euh, saafara itam problème yooyu itam. si si parce que saa su ne dinañ bind wax leen bu ñu amee occasion dinañ toog ak ñoom tamit wax leen. Mhm. mais dañuy jàpp rek senegal moom dëkk bu. dëkk bu xaw a kii la comme dëkk bu ndaw la. Mhm. moyens yi demeewut noonu. Mhm. Euh, ah, daanu waaye nit boo ko jiitalee dañ lay da war a def itam. lu jaadu la. Mhm. parce que buñ la jiitalee moom. nit ñi bu ñu amee soxla faaw ñu ne la nangam nangam nangam. waaw donc nag mooy li Serigne Babacar yi doon wax rek. nit moom boo ko kiiwee toujours dee ko fàttali rek nee na nee na nee na nit ñi dee leen fàttali toujours nee leen ngeer a ngi ngeer a ngi. parce que boo jógee si nee leen ngeer a ngi rek ñu Euh, wala ñun ñu jiite feneen toujours il faut ñuy fàtte dafa bokk ci ci ci règle du jeu yi. ok 88 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 tey euh, bu ba lañ fii daal di invité moom mooy premier adjoint bu commune bu Jaxaay alors fan yii yëpp njiitu réew mi woote woon na fi ndaje conseil présidentiel. ba mu ne euh, mbirum xëy lu mu war a mën a tey gën a jox ndaw ñi la ñu ngi tudd mille emplois yoo xam ne itam teg na ko génne 450 milliards itam ndax xanaal bi yoon commune bu Jaxaay dana ci gis boppam ndax yéen liggéey ga xëyub ndaw ñi fu ñu toll. <laughs> waaw wax na lu am solo. Euh, te jàpp naa ne problème mu ndaw ñi xam nga xam nga nit ñi il faut ñuy def analyse. Mm-hmm. ci yu bëri parce que problème ndaw ñi moom dafa nekk problème partout dans le monde. Euh, dama mës a déglu euh, comment il s'appelle benn journaliste. Mhm. mu ne dafa mës a dem ci président Houphouët-Boigny mhm. ah, maa ngi maa ngi jéggalu. Mhm. président euh, Laurent Gbagbo. ñuy waxtaan ba mu ne ko gis nga ndaw yi yëpp yi ma topp. ji rey seen bopp yaakaar la am mais man xamala mooy sama problème. bu ma jëlee bu ma jëlee nguur gi nii nan laay def ak ñoom. pour wax la ne. problème ndaw ñi dafa mës a nekk problème. xam nga loolu Euh, nit ñi waruñu sukkandiku ci loolu. pour mm-hmm. indi ay jafe-jafe pour indi ay problème parce bu ñu ne réew quatre-vingt pour cent yi ay ndaw lañu. Mm-hmm. loolu aussi nekkul lu lu tuuti. Mm-hmm. utal ñëpp xëy du nekk lu yomb. waaw mais nañuy jéem président li mu wax nii. jàpp naa ne mën na indi saafara. ci lu bëri maanaam mën na régler situation yu bëri. mais est-ce que itam dañuy ñëw rek euh, jox ko ndaw ñu noonu itam est-ce que mënuñu xool ci wàllum entrepreneuriat itam benn euh, entrepreneuriat xëy na di nga ci tàggat nit mais ñu ci bari dañuy ñëw rek jox la xaalis ne la entrepreneuriat laay def est-ce que anam googu leen ko war a defee entrepreneuriat du dangay ngay xëy rek tamit euh, ñëw nekk ci de. non non man ci sama xalaat loolu sax doxul xam nga ni boo xëyee. Ah, lan moo dox par exemple mu mu soxla ñaar fukk. nga hmm. koy jox ko téeméer. mais bu rek lee ñaar fukk yi après quatre cent yi boo moytul da koy sànq rek. du jur dara te nit ki boo ko jox dara na fekk aussi moo am lu mu mën wala am lu mu xam wala am na maanaam maanaam dina man lii laa bëgg a def ñu étudier ko ak yooyu moo tax man li ma d'accord mooy. Mhm. il faut ñu encadrer xale yi. ñi soxla formation. Mhm. yaakaar naa mu ngi ci affaire bi sax. Mhm. soxla formation ñu former leen bu ñu paree ñu yëkkati li ñu leen jox jox leen. nga ñi nga xamante ne financement lañ soxla am nañ formation am nañ xam-xam bi lépp ngi fi. financement lañ soxla. loolu si ñu xool saytu ko ba xam ne lii lii mooy seen soxla. ñu ñu defal leen ko. en tout cas bu ñu ko joxee façon boo xamante ne. vraiment dañuy joxe rek pour joxe. parce que su du am njëriñ. waaw lii am njëriñ mooy nit ki boo ko jox. da nga koy jox fekk moom am na déjà programme bi mu fisale mu taxaw nga xam ne bu ñëwee rek. Euh, à la minute da ko fay dugal. mu régler problème am. Mhm. donc man loolu laa gis. am nañu fi bari yi nga xam ne dalool nañ fii comme mhm. ay maire situation li nga xam ne moom moo jëm. Mhm. ci premier adjoint yi ak deuxième adjoint yi. am na ku ma fi fii ne ma ñoom ñu ngay sos benn kuréel. parce que dafa jàpp ni ñi nga xam ne ñoom ñoo di premier adjoint yeeg deuxième adjoint yi am na benn wekk boo xam ne des nañ leen ko wekk. ndax yéen situation boobu nga nekk yow. bon kooku c'est partout en tout cas du ñu nekk di kii bon. ndax kuréel googu yow bokk nga euh, ci. c'est vrai que man sama sama mère bon amuñu problème ah. dina may consulter ñu ngi waxtaan bon amuñu benn. problème maanaam côté. Euh, euh, waaw bi décision yeeg yeneen yi. implication seen ki seen seen profil. voilà maintenant nag dafa am loo xamante ne fokk ñu bàyyi ci xel. mooy. parce que nit ki buñ ne la buñ la falee parce que premier maire dañ koy fal. Mm-hmm. premier adjoint dañ koy fal en tout cas. xaw ma réforme yi di ñëw yu ñuy mhm. waaj parce que dañu ne bon maire bi xam naa dañ koy fal directement. Mhm. mais fi ñu toll nii maire ni ñu koy fale noonu la ñuy falee premier adjoint noonu la ñuy falee yi ci des. Mhm. ba tax dafa am loo xamante ne daf ci war a ànd. ci pal googu mooy. waaw da ngay dem ci maire yoo xamante ne peut-être adjoint ya tekkuwuñ fa dara du ñu yëg sax. wala bureau bon xanaa mu am bi réunion bureau municipal. te souvent li muy am du bari. par yenn yu bëri ci dossiers yi peut-être duñ ko maîtriser ci biir commune bi. Mhm. waaw loolu nag euh, bu ñuy defaati réforme yi nañ ko xalaat nga xam ne booy ñëw rek dafa am yoo xamante ne ñoom aussi dañ leen di may pouvoir boobu. Mhm. parce que tey maire yi ñoom ñoo yor pouvoir yëpp. Mhm. ku fa am dara ñoom ñooy délégué signature jox la. waaw mais war nañu xalaat ci réforme yi. adjoint yi ñu am cër yu ñu di jox. pàcc yu ñu leen di jox. Euh, maanaam compétence yi bëri na domaines yi bëri maintenant nag nañu xool lu ñuy def ba ñu xajal leen ci parce que boo gisee maire yu bëri mu am ay problème mhm. loolu moo koy indi parce que weg bi la waaw adjoint yi dañuy dem ba benn kii du ñu gisati seen bopp ci mbir mi du ñu xam nu mu demee mhm. ñu taxaw fee siisu te loolu baaxul population yi ñoo si njëkk a sonn mhm. donc nag il faut ñu bàyyi ci xel waaw mais naam naam bokkoo ci mais yaa ngi koy jooy nakarlu ak ñoom itam waaw parce que bokk beeg ñàkk bokk sa dépend ci relation yi ngeen di am quoi yéen seen biir yow boo nekkee ak maire boo xamante ne parce que tey yàlla dafa def man maire ba nekkal ñoo bokk parti. Mhm. bon amuñu des problèmes personnels amuñu ki mais da ngay dem ci commune man xam naa ay communes yoo xamante ne da ngay dem maire ba ak adjoint yi bokkuñu fu ñu ne. gis-gis. Mhm. waaw loolu problème lay indi. parce que dafay wu ci liggéey voilà parce que yow adjoint boo demee ba bokk ak maire bi gis-gis dañ lay isolé doo xam dara ci liy xew. Mhm. waaw doo xam dara ci liy xew. donc loolu aussi war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax a baax donc jox leen cër mhm. et tout ça bon ba pare di leen dimbali leen jàppale parce que nit aussi dañuy xëy par exemple ne la yow maire euh, jox la délégation signature état civil mhm. ngay xëy di toog toog fa ba weer dee adjoint yi laay wax ah mhm. ñoom ñëpp ils reçoivent euh, soixante mille te soixante mille lañ ciy dindi dañ ciy dindi euh, nu mu tuddati timbre sax nga recevoir ay cinquante nangam mille. adjoint yi ñoom ñaata salaire la ñuy. loolu la ñuy am. adjoint maire yi. maa la wax lool loolu la ñuy am soixante moins de soixante mille. ah sa waay loolu moom na waar di. waaw léegi yow ñu jox la ay ay kii ñu jox la ay ñu jox la liggéey nga bàyyi la nga doon def ñëw toog utale bureau nga ñëw nga ñëw toog nekk fa ba weer dee sa waay loolu ngay jot nga xam ne te motu la sa carburant loolu aussi il faut ñu xoolaat mais tamit nañ bàyyi xel ci loolu. loolu ay loolu est-ce que du incohérence itam. ah waaye war nañ ci bàyyi xel en tout cas ñu ngi ciy wax pour ñu ñu bàyyi ci xel beneen bi même les conseillers municipaux. Ah. Mhm. da ngay gis ñoo xamante ne dañ leen di jox ay commission ba pare ñoom moom dara boo paree merci lañ lay wax nga nga yooyu yëpp il faut ñu bàyyi ci xel jàppale euh, bureau municipal bi. di jàppale conseil municipal mhm. waaw. wax dëgg yàlla loolu moom dama leen koy dama koy dama leen koy plaidel mhm. dama leen koy ba ko mooñaalee moo bëgg nguur moo bëgg jiite mhm. yaakaar loolu ça fait nit dañ ko mooñaalee loolu mhm. mais parfois da ngay dugg ba ci nga xam ne affaire bi kat ay problème bëri ay coono waaw donc jubbanti war na ko. voilà donc nguur gi nañ ci xalaat bu baax a baax jubbanti ko loolu nañ ko ci boole. Hmm. vraiment di leen jàppale même maire yi ah. Hmm. maire yi da ngay gis ne que li ñu leen jox tax koo demee non non bu ma juumul est-ce que du trois cent mille. Hmm. loolu c'est c'est c'est deux fois rien. ok maanaam il faut ñu bàyyi ci xel. Mhm. il faut ñu bàyyi ci xel parce que. nit aussi léegi yow yan piste de solution ngay joxe ci loolu. ñu woo leen ci waxtaan xool yan piste de solution la ñu mën a am ngir jóge tamit ci lii parce que li nga wax ni tam situation premier adjoint ak deuxième adjoint yi. Mhm. Euh, doy na waar quand même y compris les conseils. effectivement effectivement il faut ñu bàyyi ci xel seulement yi nag dafa neexut di wax parce que boo koy wax ñu yaakaar ne. bon la nga am sa bopp ngay mais man fii ma toog di wax ni man xam naa ci situation yoo xamante ne ay situation yu xaw a doy la yu xaw metti kon nañ ci bàyyi xel daal li ci des nag mooy waxtaan bi ñun en tout cas ñu ngi joxe suñuy proposition mm-hmm. waaw fépp fu ñu dem suñuy naatangoo bu ñu toogee ñu ngi joxe suñuy proposition mm-hmm. di ko envoyé fu ñu ko war a envoyé mais tamit nañ ciy bàyyi xel parce que bu ñu la joxee rek doo ñëw xool après bàyyi dem baaxut mm-hmm. parce que réew aussi bu ñu demee di di di di di def ay réforme di def ay réforme hmm. dina toll foo xamante nag il faut ñu appliquer yenn yi hmm. ba nga xamante ne dina amal njëriñ bi benn askan benn dina amal euh, njëriñ hmm. askan wi waaw parce que loolu yëpp day dugg ci cadre boobu parce que tey boo nekkee ci condition yu baax yu ñuy wax yu bëri peut-être mën naa bañ xam nga parce que ngay dégg ñu ne ah maire kii nangam lu bal na fii wala parfois fois nga koy dégg mais yu bëri ay problème la te xam nga fii politique maanaam lu la may pour nga téye ko coono la ñuy def politique xam nañ li may wax. Mhm. parce que gars yi ku am ordonnance day ñëw de ne la waaw sama ordonnance bi parce que yaakaar la am ci yow. Mhm. ku am ngénte wax la ko ku am xew wax la ko xam nga. te yow aussi yaag ñoom yeneen nekk da nga leen di soxla. Mhm. bu ñu amee seen soxla di nga ci taxaw te lu nekk di nga ci def dara donc nañu xoolaat mbir yi bu baax a baax. c'est pas facile. ok dañuy dellusiwaat rek ci ponk bu njëkk bi ñu waxtaanee ci wàllum le ndax mën nañ xaar ni yéen ngeen dem seeti commune bu Bambilor ak yeneen communes yi nga xam ni ñoom d'accorduñ ci euh, mbir mi ngeen mën a def bloc ngeen tënkandoo seen mémorandum jébbal ko ñi nga xam ni ñoom ñoo leen jiite ndax mën nañ xaar yooyu. waaw ñu ngi koy dox nag ñu ngi koy dox au niveau de bambiloor parce que moom moo gën a moom moo ñu gën a jege te daanaka coow yëpp en tout cas li concerne ñun suñu secteur bi. Mm-hmm. ci département Rufisque coow yëpp daanaka foofu la. Mm-hmm. xam nga ñu ngi ñu ngi démarché loolu. ok xool nu ñuy waxtaanee. Mhm. waaw bu ci loolu bu ñu jógee aussi am na même même au niveau de Sangalkam ni ñu bëgg a rattaché Sangalkam. Mhm. am na cinq villages yoo xamante ne. waaw cinq dina booy relance bi sax dinaa ci ñëw cinq villages yi. donc loolu. Mhm. en tout cas ñu ngi ci. ñu ci fu mu nekk nii moom xam nga gars yi ñu ci. ñuy xool nu ñuy kii parce que bu ñu xëyee door la kuu rek mhm. xam nga da ngay xaw a miir mhm. boo miiree balaa ngaa ximmali ko nag moom dina jël benn mhm. benn temps bu ndaw mais fu mu toll nii ñu gi dox yooyu nga xamante ne suñu combat benn lay doon parce que euh, combat bi moom bu féewalee amee waaw féewaloo amee du du sotti mais yéen ñëpp ngeen jógee tiré ndoos ci Omar Gueye itam baa dina sotti non Omar Gueye moo moo moom moo exposé boppam parce que bu bàyyee ku nekk nekk ca la nga problème du am waaw moom bu dee am na ay ambition wala am na leneen donc loolu moom la concerné na nekk ci loolu rek. Mhm. mais bu mu ñu utiliser quand même pour. régler ses comptes politiques. ok ba tey ci wàllum redécoupage bi itam. Mhm. am na juróomi commune commune yoo xam ne. Mhm. ñu ngi ca xawma ci Bambilor lañ nekk ñoom ku kuunun ak euh, ñoom ñu doon sàkk communalisation. Euh, ñoom kuunun sax neewoon nañ ñoom mën nañ. demal seen bopp léegi ndax mate nañ ko léegi ñooñu itam ñu bëgg leen rattaché ci Sangalkam mhm. euh, jooytu nañ ko woon fii keroog si rajo bi si mhm. journal midi bi euh, est-ce que du indiwaat yeneen frustration encore non jàpp ma ko buñ jàppee na ñoom vraiment mate nañ ko te et boo xoolee sax en tout cas du ma ci sori parce que mhm. comme nekkuma fa mais tamit dafa yéen a bokk xeex bi ñoo bo ñun ñëpp bokk xeex parce que il faut ñu bañ a fàtte ni ñun ñëpp ñoo bokkoon nekk donc kunun bu ma fa demee xam naa fa maanaam bu ma xamul ñëpp sax xam naa ñu ñu ñu gën a bëri ci askan wi xam naa leen. Mhm. également yeneen secteurs yi. Mhm. donc foofu kunun Kër Ndiaye Lo. Kër mhm. Daouda Sarr euh, kunun Ngalap euh, cité enseignant. donc zone bu yaatu la. ok zone bu yaatu la am nañu man jàpp naa ne war nañoo mën demal seen bopp. même bu fekkee nee nañu président waxul ne day créer yeneen commune bu fekkee ñoom dañu jàpp ñoom war a mën a nekk président mu war nañ si mën a jàppale. te mhm. loolu mooy yoon. Mhm. xam nga ay nit aussi da nga defal li ñu bëgg. c'est vrai que du lu ñu loo bëgg ñu defal la ko mais mhm. bu ñu xoolee li nga bëgg. mu dëppoog li jaadu mu mu mu mu mu mu nga mën a demal sa bopp. pour pa pour pourquoi pa parce que jëm rattaché ji leen sangal kam kooku aussi même bu régler seen problème yaakaaruma ba xam di nga ko régler lool lool lool lool. donc mhm. daal li ma jàpp mooy comme ñoom soxla nañ loolu. Mhm. ah président na leen yóornduwaat nag. ok waaw ñu defal leen seen commune. Mhm. xam nga jàmm ñooy parce que ñoom mën nañoo demal seen bopp. parce que su euh, nu mu tuddati sax euh, centrale Sénélec bi nekk foofu. Mhm. et tout ça ñoom mën na leen dundal parce que loolu c'est des centaines de millions euh, par année. Mhm. xam nga ñoom am nañ suuf. Mhm. tool yaa nga fa et cetera. station yeeg yu demee mën nañ demal seen bopp. ba tey yéen a ngi ci incohérence bi nga xam ni. waroon nañ ko jubbanti ci seen commune. yéen a ngi ci incohérence boobu ba tey. léegi ban anam léegi luñ ko war a mun a amalee. Mhm. mu am cohérence léegi. voilà léegi ñun lañu ñu woon dafa simple. Mhm. parce que boo ñëwee ba par exemple suñu diggante ak Kër Massar. Mhm. nañu jël parcelles yi yellooñu ko ci ñun la bokk. boo demee sunu diggante ak Tivaouane dañ ñëw ne village Niakourab dañ ñëw dañ ko xaaj ci digg bi. li féete nii tali bi Tivaouane Peulh la fële la bokk Tivaouane Peulh li féete ña euh, jaxaay la bokk. loolu jar xam nga dëkk bu am quatre cent ans nga ñëw. xaaj ko ci digg bi naan kii fee la bokk kii fee la bokk loolu aussi du ay wax. Mm-hmm. waaw bu ñu la ne ñu leen extension. parce que pour wax la ne. Mm-hmm. waa ANAT parfois man aussi daf may jaaxal seen liggéey nu liggéey. Mm-hmm. daf ma jaaxal parce que maa ngi lay wax sànq ne euh, seen seen seen seen DG bi dafa woote ci benn émission di wax. d' abord bu mu njëkk def mooy dafa ne Daaru Cubb ak Medina Cubb du benn c' est deux villages distincts alors que loolu amul Daaru Cubb mooy Medina Cubb benn dëkk la. xam nga bon ñu ne extension ñàkk dañu jàppoon ne ci antari ñàkk rob booy dugg ñàkk rob loolu mooy extension te loolu amul dafa am extension bu fa am boo xamante ne jamonoy Omar la hmm. comme président comité rural ñu def extension yokku ñàkk rob mu am mu am autorisation de lotir am papier yu mu war a am yëpp hmm. boobu mooy extension ñàkk te boobu mu ngi ci kaw wetu hmm. Tivaouane Peulh fa la nekk donc aussi anaat parfois seen liggéey daal nañ ko xoolaat bu baax a baax a mhm. seen liggéey man moom wax dëgg yàlla doy na waar xaw ma euh, ba xam euh, seen ministre bi moo leen di orienté par rapport ak loolu xaw ma nu mu demee noonu. Mhm. mais daal comme ñoom. Mhm. service technique la ñu. vraiment ministre bu demee fii la leen di bàyyi. nañ def li nga xamante ni kat. moom moo yanu maanaa. waaw nañ def lu yanu maanaa. voilà donc ci wàllu découpage bi boobu. ñàkku rab dañuy demander ñàkku rab ba ci extension yi comme ni ñu ko waxee woon. Mhm. dara bañ ci fell. boo demee suñu diggante ak foofu tamit moo gën a garaawati xam nga dafa am benn kii bu fa nekk ñu naan ko lébu gi. Mhm. lébu gi ak cité gendarmerie ça fait 6 mètres. lébu gi cité gendarmerie seen diggante 6 mètres moo ci ne. Mhm. nga bëgg ko jël bëgg ko yóbbu Bambilor nga xam ne mu ngi à des dizaines de kilomètres. xam nga loolu. yanuwul maanaa waaw te ba pare li logique sax mooy boo jëlaalee euh, bande boobu yëpp lycée bi ñu wax lycée jaxaay nga xam ne jaxaay mm-hmm. lycée boobu kese la am mm-hmm. boo jëlee bande boobu sax da nga ko ci boole kon normalement jaxaay sax warul am lycée <laughs> lycée boobu Bambilor la war a bokk kon yéen a ko ne loolu ci affaire yi donc loolu tamit demande nañ ñu corriger ko mm-hmm. ñu defar ko ba nga xamante ne almadi 2 bi ci wàllu boppam war naa mën a ñëw jaxaay parce que jaxaay la gën a jege almadi 2 bi war na fa ñëw xam nga mu nekk loo xamante ni aussi lu lu normal lay doon. Mhm. lu ñun loolu la ñu demandé. ok nañ corriger yooyu. Mhm. vraiment jàmm na ñooy ñun loolu rek lañ doon demandé mais pas ñëw di daggaat affaire bi. Mhm. lañ doon jooy sax ñu gën koo wàññi. ñun demandé wuñ noonu soxlawuñ loolu. ok tey ñu ngi ci cappaandaw émission bi ñu bàyyi la rek. nga tàggatoog rek mbokk auditeurs yi ak ñi nga xam ni ñoom ñoo ñuy déglu commune bu euh, Jaxaay Ñàkkurab ñu bàyyi la nga tàggatoo. voilà donc maa ngi leen di remercier bu baax a baax euh, opportunité bi ngeen ma may pour ma ñëw vraiment euh, wax sama xalaat ci découpage bi ak situation politique dëkk bi euh, di remercier waa jaxaay gi yëpp nag waaw commune de jaxaay maa ngi remercier ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp waaw parce que gis nañ ñuy sondé si combat bi nu ñu ciy jàppee

incohérence yi ok mhm. mais problème découpage bi moom na ko teg ci suuf donc di sant ñëpp mhm. di gërëm ñëpp mhm. samay collaborateur vraiment di gërëm sama maire c'est Mor Ba di gërëm staffam yëpp vraiment di gërëm ñëpp parce que bu ma limee damay juuma ah. mu limee damay juum vraiment maa ngi gërëm tout le monde je vous remercie di waa daaru cubb yëpp mais duñu cubb nga xam ne falaa dëkk maa ngi leen di sant di leen gërëm ah di leen nuyu baax di leen wax ne aussi mardi incha allah am nañu assemblée générale ci biir ci penc mi waaw di wax ci même question bi mhm. vraiment il faut ñu def ci benn kii bu am solo. Mhm. mu am mobilisation bu am solo. Mhm. vraiment ñu génn wax. suñu xalaat ci ngeen wane ni bañ ngeen. wane ñu bañ nañ. voilà je vous remercie. ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax bu baax moo nekkoon premier adjoint bu commune bu Jaxaay ak commune bu ñàkk Niakoulrap mbokk yi ñu ngi leen di jox dig daje beneen dimanche ak beneen invité fii ci rajo Rewmi FM ci émission gox bi.